gannaaw buñ sante yàlla jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu seen kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci pays bi di jiital ci nuyoo beeg ziyaara bi xaadimul umma Cheikh Mouhamed al Mahi Ibrahim Niass di al imam akbar Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé di nuyu Cheikh Mouhamed al Mahi Ali Cissé di nuyu Cheikh Mouhamadul euh, Mouhamadul Amin Baba di nuyu waa pays bi ñëpp. di wax ci seen mbokk la Barham bi tey euh, doomi sëñ Daara Cheikh bi tey li nga xam ne imaam moom la teg liggéey bi ci loxoom ànd koog Mouhamed Niane ànd koog Baye Cissé Seck doomi sëñ Daara Seck ak suñu waajur Papa Barham Sall ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko jàmm dolli ko wér moom itam. ay xelam ak xelaatam mu ngi ñëw ci ñun dont mu ngi këram toog waaye mu ngi ñuy xelal di ñuy wan yoon bi toujours ñu ngi naan yàlla dolli ko jàmm dolli ko wér te suñu waajur yi jiitu yàlla dolli yërmaani ci seen kaw yéegal leen firdawsil aala ak képp jullit bu fa nekk ak yaaram gannaaw buñ nuyoo ñoom ñëpp euh, liggéey bi démb la ko imaam ubbi ñu commencé ko gannaaw bi mu jullee fajar Euh, mu def yéene bi dugal ay yé dugal yéene bi nga xam ne moom la fi bàyyi baay ak ñaanal ak mboolem yéene yi nga xam ne soxla nañ ko tey ci jamono ji muy ay ñaan yoo xam ne euh, Cheikh Mouhamad euh, Cheikh Imaamul Akbar Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé dugal na ko wax dëgg yàlla am démb mbooloo yi ñëw nañ njort woon naa ne nawet bi sax dina am lum ci def waaye dëgg-dëgg nañ daan taxawee lañ taxawee démb euh, heure yi ñu daan wàcc lañ wàcc heure yi ñuy commencé lañ commencé bañ xëyee tamit yàlla ji taw na gannaaw buñ jullee fajar euh, bañ commencé noonu yàlla ji taw na waaye yàlla def nañu ubbi jumaa ji euh, ñëpp dugg toog jàng ci gàttal daal taw bi yàqu ci dara ndax ubbi nañ jumaa ji euh, sëriñ daar yëpp dugal seen ndongo yi toog ak ñoom ndax loolu la imam sàkk woon ci ñoom su fekkee gaar-gaar am na mooy lu mel ni taw ñu ubbi jumaa ji bu ko defee sëriñ daar yi toog ak seeni taalibe bu ko defee duñ mën a taqal dara duñ mën a yàq dara loolu nag yàlla def na dégg nañ ko topp nañ ko wax dëgg yàlla euh, démb ak léegi wax dëgg yàlla ni nit ñaa ngi jàng ñu ngi jàng comme nañ ko daan defee dara wàññiwu ci wàññeekuwu ci eh, sëriñ daara buñ dem ñu ngi lay fàttali li imam wax waaye ñoom ñëpp nee nañ dégg nañ li imaam wax te danañ ko jëfee kon imaam ba mu ñu dégg ko rafetlu ooteeg imaam te ne fexe nañ liñ amoon danañ ko yokk sëriñ daara bu nee danañ ne danañ def effort def góorgóorlu dégg nañ wax imaam te danañ ko jëfee te danañ ko topp kon am nañ yaakaar ci ne lim bi euh, fi ko imaam bëgg dana fa yegg dana fa yegg wala lu weesu jox te ñu ngi ñaan yàlla may ñu loolu euh, di wax ne tamit nañ nañ nañ profité ci ci xéwal gi yàlla jox ñu euh, wa saabiquuna saabiquun ulaika almuqarrabuun nit ñi ñu ngi rawante fastabiqul xayraat comme yiw bi nga xam ne moom la ñu Cheikh Ibrahim radiallahu an indi yiw bii nañ ci njëkkalante te kenn ku nekk na nga foog lu xam ne dëgg dëgg yiw bi man maa ko moom kenn ku nekk na taxaw ne yiw bi maa ko moom bu ñu defee loolu rek dëgg dëgg liñ bëgg dana am dana am te nañ ci rëg-rëgloo nañ ci njëkkalante teel a ñëw gën a yokk ite yi gën a yokk farlu bu ko defee liñ ci bëgg rek yàlla defal ñu ko ñu defal ñu te bëgg nañ teel a jot lim bi balaa imaam di ñëw ci minbar bi taxaw di xutba ndax bu imaam ñëwee ñii oote di joxe lim loolu dafay métti pour nga pour pour xutba xutba wax dëgg yàlla am bu xasee teew dara warut faa am lu dul dégloo kon dégloo boobu nag war nañu ko mbokk yi nga xam ne ñooy joxe lim bi war nañoo mën a teel a ñëw midi bu jotee wax dëgg yàllaam ñun 9h toog. di di di di jël limi 9h 9 balaa imaam a ñëw ñu mën a oote nañ oote balaa imaam a ñëw ñu mën a ñëw ñëw balaa imaam a ñëw bu ko defee liñ mën a jot ci lim bi ñu jot ko ndax mooy loolu mooy waral buñ paree di dabaatal am na ñoo xam ne tàkkusaan sax dañ koy joxe lim te bu imaam xasee xatmu euh, nañ ko joxe balaa imaam di ko xatmu donte daal day bokk sax ci lim bi waaye nañ ko indi balaa imaam di xatmu ndax ñu ngi fi numéro yi ñu koy joxe bu ko defee ñu di ko jàllale ku ci woote da nga jot. numéro boo ci wootee rek da nga jot am na WhatsApp boo ootee tamit ci ci appel normal di nga jot boo ootee WhatsApp di nga jot mu connexion bi mu ngi ubbeeku euh, toujours muy numéro bi 77 635 48 25 77 635 48 25 wala ñu oote ci beneen numéro bi mooy 77. cent dix double zéro 77 cent dix double zéro numéro yi ku ci oote incha allahu rabbi mu ngi ubbeeku ku ci oote da nga da nga jot te da nga mën a joxe seen ku ñu oo tamit ligne bi saturé mën nga ñoo bind message boo ñu bindee message wax ñu lim bi rek danañ ko bind am na ñuy def loolu waa am na ñuy def loolu ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm yaa rabbi allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi sayyid al awalin wal axirin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain ñu ngi sant yàlla di julli ci yéen bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu mboolem ñoo xamante ni ñu ngi ñuy seetaan ak wala ñi ñoo xamante ni ñu ngi ñuy déglu di jiital ci nuyoo bi xalifatu saaxibil fayda nga xam ne mooy xaadimul umma Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi ayadahu llah wa nasarahu waaye di ci teg imaam ah, imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé yàlla na yàlla dëgëral ko te yàggal ko fi moom tamit ci kanamu topp di ci teg euh, porte parole mooy Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé mu ngi ci tukki ñu ñaan yàlla delloosi ko ci jàmm mu fekk ñu ci jàmm yàlla dëgëral leen te yàggal leen fi suñ kanam di sant yàlla mi nga xamante ne may nañ ñu fekkee daaw mayaat ñu ñu fekkee ren ci sunna boo xamante ni bàyyi moo ñu ko sunnaal bàyyil ñu ko fi muy sunna bu rafet man sanna sunnatan xasanatan ajur ajruha wa ajru na amila biha ila yawmi alqiyama kon loolu day delluwaat ci misaan xasanaatam moom Baay Ñas di ñaan yàlla gërëmal ko di ko jaajëfal bu baax a baax di nuyu suñ mbokk ustaas yi ak mbokk sëñ daara yi beneen yoon di wax ne événement bi suñ événement la suñ événement nag waruñu ko sàgganee ba mu nekk loo xamante ni luy xajam lay nekk wala mu nekk loo xamante ni lu lu lu doxe di lay nekk ndax newut lu doxe di bàyyi dara am doxe diwul te mu ñu sunnaal li bàyyil ñu ko fi mu nekk sunna boo xamante ni sunna bu rafet la waaye ci lim ko def moo nekk alquranul karim nga xam ne moom wax na ne fal tajaalan xifza kitaabika alkarim karaamati ila liqaayika alazim na nga def si yàlla sama karaama mu nekk di alquran ma koy ñu koy watu sama pays bi ba ila àddina di tukkee waaye lam ca teg mooy wane ñun suñu jaabanti yiñ ci jaabanti ay at ak ay bis yu nekk ñuy dajee di ko jàng di ko dajale di ko def ay lim mooy lan shawqi wa hubbi fii kalaas fii siwa xululi wa irtixaali fii sama cofeel ak sama bëggeel ci ci yow ma ne du doy may nekk di yéega ko wàcce te la yontu bi laaj nañ ko ki gën mooy mooy kan mu ne moom alxaalul mutaxil nga xamante ne dafay yéeg a ko wàcc ci alxuraan mu ne kooku mooy ku gën ñun nag ñu ngi yéeg ko wàcc ci alxuraan daaw yéegoon nañ wàcc nañ tey ñoo ren ñëwaat nañ ñu ngi yéegaat te diggante bi kaang yaa ngi bëri di yokku kon ñun sëriñ daara yi comme que ngi yaa ngi bëri ci barke Baay boobu nga xamante ne def na yàlla defal na ko alxuraan muy karaamam daare yi comme que mu ngi yokk ci barke Baye bi nga xamante ni yàlla def na alxuraan muy karaamam ba nga xamante ni boo yëngatoo tuuti rek ñu tuddee la ab sëñ daara te fekk ci barkeem la wala nga yëngatu tuuti rek am am kaang te fekk ci barkeem la nañ ko njukkalee lii mu woote nga xam ne pour lislaam lépp la pour diine pour àddina bi lépp la waaye pour Sénégal lépp la lii mu woote pour xettali jaam yi mu xam ne moom moo wax ne wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina ma ommat jaam bi yëpp jaam yëpp yóbbu leen ci pay yàlla bi loolu mooy sama bëgg-bëgg ci ñoom wax ne awjadani haqqan li yablil kasi fa innani wakilu sirri sirri yàlla dafa ma defal man amal ma pour ma nekk di jàng damm-damm yi damm-damm yi fi ne nii bëri na ñu ci situation yu doy waat ci suñu suñu réew mi ay élection ñu ngi ci jëm am na ay xëccoo am na ay lu nekk ñu ngi woote jàng kaamil ñu ngi jëm ci nawet nawet boobu bëgg nañ mu barke woote nañ ci jàng kaamil alquran yonent bi nee na lépp muñ ci waaye wax na wanu nazilu min alqurani ma wa shifaun wa rahmatun lil muminina kon alxuraan lépp ci moo tax bàyyi na solution bi comme kom moom la mu delloo ji waat ñu ci alxuraan bi nga xamante ni moom mooy suñu catalogue dund ñun ñëpp ñu dellu ci waat jàngaat seetaan talaat baat yi ñu paree ñaan yàlla mboolem situation yi nga xamante ne réew mi ñu ngi ci ñu génn ci waaye mboolem bëgg-bëgg yi nga xamante ni jaam yi ñu ngi ko bëgg ci seen borom ñu ñaan ko yàlla defal ñu ko defal ñu ko ñu kawe suñu njott kon ci loolu imaam akbar démb yàlla dogal na mu waat nit ñi fàttali nit ñi yéene yi nga xamante ni moom la ci bàyyi yéene waaye wax nañu ne sëñ daare yi bu ngeen indee sëñ xale yi nañ leen taxaw ñu taxawu leen ñu jàng taxaw boobu noonu da ci am solo dina waral ñu sellal ko dina waral tamit lim bi nga xamante ni moom nga bëgg a am ñu am ko te loolu yokkute rek lañuy ñuy jural waaye du ñu jural benn wàññeeku mm, kon ñu ngi ñaax suñ bokk sëñ daara yi képp koo xamante ni yàlla dogal na nga fekkeewaat ko ren nga sante yàlla la nga defoon daaw nga def ko lu ko ëpp ren nga sante yàlla loolu noonu ndax ndigal boo xamante ne jóge na ci imaam te imaam lu mu wax jàpp nañ ne lu ñu war a def la ndax mooy suñu njiit moom moo ñu doy bañ jiital ko ci ndigalal xalifa bi tamit di wax beneen yoon ne heure yi nañ koy fexe di respecté buñ bëggee am lim yuñ bëgg am bu bu buñ xëyee war a jàng buñ toog ba war a war a xëy julli fajar ñëw nga toog ba yenn heure yi nga ñëw kooku li nga war am ci suba gi doo ko am boo too waree julli boo waree ndékki ñëw nga ndékki toog ba yenn heure yi ñëw nga soog a ñëw bu boobaa li nga am doo ko am te fekk yow defoo ko. Euh, mu ngi mel ni yow yow yaa ko def ta fekk mu ngi mel ni ñun ñoo ko def te fekk yow jàngalekat bi yow yaa ko def ndax xale yi boo leen ebalee pour ñu jàng te taxawoo duñ jàng waaye tamit bu fekkee ne bëgg nga am yenn lim yi soo si taxawul far farlu ci xal sa tàng tubay doo ko am comme que am na erreur boo xam ne mooy erreur commencé am na erreur boo xam ne mooy erreur nañ ko fulaal fay daal ko joxe ci suñu mboolemi kàttan bu boobaa bu ñu demee ci erreur bi nga xamante ni moom lañ tëj imaam dina kontaan ci lim bëggoon ndax dina ko am waaye bu kontaanee xalifa bi dina kontaan te xalifa bi moom mooy Mawlana Cheikh al Islam ci ñun tey moom bu kontaanee Baye dina kontaan te Baye li bëgg rek mooy li ma leen waxoon li bëgg ci xeet bi mooy ma wommat leen yóbbu leen ci pays bi te loolu suñu njëriñ rek la ñuy lay nekk di gërëm bu baax yéen presse bi di leen ñaanal yàlla yéen ak ñi nga xamante ne ñoo nekk convention Média dina Baye yëpp yàlla dimbale leen li ngeen bëgg ci seen yëngatu ci xidmaal baay yàlla defal leen ci lu kawe sa njot di gërëm baraam mi nga xamante ni moom la yàlla dogal tey mu nekk raisul na ci ndigalal imam bi mu ko ko joxee boo ñu ñun ñu ñu joxante ay loxo ci kanamam ne nañ jàppalante ci liggéey bi boobu ba léegi ñu ngi wax ne lim xamante ni moom la sàttuwante ak ñun ak mboolem tañ sañ daara yi mu ci. ñu ngi koy ñaanal yàlla ndaw la yàlla na ko yàlla def mag liggéeyu baayam la nekk. liggéey am la nekk bu dañuy wax ne doomu ñey bul ko ñaanal rëy waaye ñaanal ko gudd fan kon yàlla ko yàlla dëgëral guddal fanam lim ci lim ci semb nii di ko jéem a sonnee yëpp ñun xam nañ ko ndax ñu ak moom ñoo nekk ci terrain bi danga nga wàcc dem ci sëñ daara bu ne xool nim toogee bu nekkee ci bit lañ ne te yow yaa ngi yor sa daara war koo taxaw pour ñu xam nga kon loolu loolu yombul ñi nekk seen kër yi sax yow su fekkee yàlla mën loo na la danga nga a dem ci ñoom wala nga jog ko ñoom xool ci luñ nekk loolu nekkul liggéey bu yomb ku foog ne lu yomb la newut lu yomb kon yàlla na fal oyofal di ñaan ñu wajur yi nga xamante ne jiitu nañ muy suñ bàyyi alaaji Cheikhu ñaan nga xam ne daaw ci heure bi la ko yàlla jël te mu nekkoon rey su lëj na bi yàlla na yàlla yërëm ko te xare ko na waay sëñ daara Souleymane Seck nga xamante ne jiitu na sëñ daara Cheikh bi tey ñoom ñëpp yàlla yërëm leen xare leen àjjana te lépp loo xamante ni ñun ñu ngi koy liggéey yàlla defal leen ko sëñ Mizaanu Xasanaat ñu boolee dëkkal leen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëgal saa kaw li yéen di jégalu bu baax a baax mbooleem way seetaan yi ak way déglu yi kàddu yi sant yàlla la waaye kàddu yi dimbalante ci suñ biir wane ne liggéey bi ñu ngi ci te tàmbale nañ ko te dañoo bëgg mu baax rek képp ku ne da ngay fii keneen jàpp fii mu baax képp kuy jàng lim ak ku munti doon nag foo ko munti jàngee bu dee ci biir réew mi la wala ci biir bu dee bitim réew la boo bëggee ñu jot ko ci ci ni gën a teelee boo wootee ci numéro yi dinañ dinañ ci jot. Barham numéro am mooy 645 635 48 35 25 600 waaw waaw waaw mooy numéro yi ak beneen bi mu ngi mu nekk 110 00. man sama numéro 77 876 40 40 ku seetaan lii boo xoolee ci suuf da nga gis numéro yi yooyu dafay yombal ñu jot ci boo wootee jotoo ci baraam nga woo ci beneen numéro am jotoo nga woote ci ñetti numéro yi man naam doo ñàkk jot ci ñetti numéro yëpp waaye boo ci boo ci wootee jotoo tamit boo yénnee sa message ci whatsapp ñun dinañ ko liir te dinañ ko jël tenir ci compte lépp ñu fexe balaa imaam di ñëw ñu jox ko ko bu ñëwee rek mu def xatmu mu benn yoon loolu moo gën ñun dem ba imaam ñëw ba pare ñu ñuy nekk di dabaatal di wootewaat nga ciy nekk di liggéey ba minuit ci guddi nga ngay soog a amaat beneen lim di di di dabaatal di yokkaat leneen di jéggalu ñëpp beneen yoon bëgg mu baax rek moo tax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu man sëñ Dafa Mar Thiam dëkk Kër Mbaaw maa leen di nuyu <coughs> de leen de siyaara Mouhamad Mahi El Hadj Mouhamad Mahi da ko siyaare da ko ñaanal fan gu da yaram wet da ko ñaanal ay doom ak taalibe baay yëpp <coughs> da siyaare Cheikh Ahmad Tidiane El Hadj Cheikh Ahmad Tidiane Cissé da ko siyaare da ko ñaanal fan gu da yaram wet moom njabootam ak mboolem képp ku moo jiite da <coughs> daan xam ne ñun ba ci dund ak baay dund ak baay ci lañ daan ñëw ci kaamil yi ba ba baay nelaw <coughs> baay nelawee El Hadj Abdoulaye doomam xuutu ko ñu de ci ñëw ba mu demee Cheikh Ahmad daam wutu ko ñu ci ñëw ah ba Cheikh daam <coughs> demee ah, Alaaji Cheikh Ahmad Tiyaan wutu ko ñu ne ci ñëw ah bu ñëwee dañ góorgóorlu ah ndax baay moom daf ñu may xiyóor gu rëy ndax <coughs> daf ne alquran na nekk karaamaam ah te alquran nekk na karaamaam ndax Medina Baay Medina Baay gii <coughs> ni fi nit ñi tëree alquran Medina rek la xam xale bu tuuti am na xamagu juróom-ñaar tëri alquran loolu Medina Baay rek la xam sax tëri fa alquran kon <coughs> ñu laa ndokkeel <coughs> yow ba bi ñu laa ndokkeel da ndokkeel sa baay Moustapha Diouf suñ xarit la ñu ko ndokkeel da ndokkeel sa maam sa maam baayam Moustapha Diouf daf daan dajale nit ñi da jàngale xam-xam man bokkoon naa ci da daan dajale nit ñi da joxe xam-xam ba une heure ah, ba taal bi du jeex kon sa maam ñu ngi ko ndokkeel de ko ñaanal mba de ko ñaanal mba njawatam yëpp yan yàlla ñaanal may leen barke sa bàyyi suñu xarit la <coughs> yaa yal na yàlla guddal fanam may ko fan gudd ak yaram wét ñu ngi kontaan lool ndax alquran mooy lépp li suñu tere ci la ko wax lim dële ci la ko wax <coughs> waaw lim ñu yaakaar loo ci la ko wax kon alquran ku ko desal gannaaw rek juum nga bàyyi ñes rek lañ gis ci àddina <coughs> moom moo njëkk a jàngal doomam jigéen alquran ba doom ah Mariama nekk xaadimul Quraan ah doomam Roqiya Roqiya Ñas taalif téere loolu ci Baay Ñas rek lañ ko gisee Baay Ñas daal moom njabootam jigéen yëpp lépp jàngal Alquraan ndax xadis xadis ba fa ne tala bu xam ne faridatun kulli muslima Baay Ñas moom d'accord na ci loolu jàngal na ak njabootam jàngal na ay taalibeem xam nga ne Baraam Juuf ko <coughs> waaye <coughs> kenn demut ba ko kon ñu ngi sant yàlla bu baax da ñaan Baay Ñas yal na la yokk leeram Baay Ñas yal na la yokk leeram te yàlla na taal ñu ci barkeem yal na jëlal suñu mboolem tàkk do yéen seen rajo bi la yal na ko la dundal yal na ko la barkeel yal na ko la jox mbooloo yal na ko la barkeel yal na koy la barkeel lépp lu ngeen ci yëngatu yal na leen koy la da na ngeen toog ba am télévision la ngeen lépp ngeen bëgg a xàgg yal na ngeen fa xàgg barkeel Baay yal na xàgg si ci yéen xàgg si ci ñun xàgg si ci mboolem taale Baay ndax Baay nit la koo xam ne li ko yàlla may mayul ko kenn ndax nit koo xam ne fu ne xam nga fa taalibe réew mu ne xam nga fa taalibe xam nga Cheikh Maay fan yi li mu xam loolu moom rek moo ko mën a xam ndax dem réew moo xam ne kenn ñu fa dem bàyyi xaar ko mu dem fa dama ko ne Cheikh Maay maa laa ndokkel ndax ba yow sa baay moo baxaw fa baxaw xàddina bi yow li nga doon def bayaat la li nga doon def bayaat la waaw kon ñu ngi sant di gërëm baay di gërëm njabootam di a taalibeem ah dugg nañ ci nawet ñu ngi ñaan nawet bi yal na barkeel ko yal na ñu barke asamaan gën ñu barke suuf lépp luñ ji yal na yàlla ko màggal ko meññal ko ñoral ko ñu jaamoo ko yàlla <coughs> jeexal bañ daa bañ dolli yal na yàlla faj suñu xaaj ñii barkeel seen commerçant lépp luñ jaay yal na jar te bu ñi ne ci métier métier mu mën do bu daa lu ma métier mu mën a do rek yal barkeel yal na yàlla may ñu fan ñu ko ñun ñëpp yal <laughs> yàlla nañ fi yàgg teew fan wu gudd lu jar ñaan la fan wu gudd yal nañu ko yàlla may fan wu gudd yal nañu ko yàlla may ndax fan wu gudd <clears throat> ci nga ma a jaamu yàlla lu yàgg ci nga ma a fekkee lu bëri kon yal nañu ko yàlla may yal na yàlla xubbee ñu sa baay yal na ko yàlla may fan wu gudd yaram wét eh, yéen yàlla may na fan wu gudd yaram jotan seen mboolem tàkkuteew <clears throat> yal na yàlla xaar leen sàmm leen jotan seen mboolem tàkkuteew yal nañ fi yàgg teewee ay déwén déwén déwén li ngeen def ni yal ngeen ko yàgg def ci barke yoon del bak sama ah <coughs> kon ñu mosal leen ay wuj ñi <coughs> mag ñi <coughs> daan jàngal alxuraan dañu seet baat yi jafe ñu de ko compté da génne mu ne fi tuxyaan yi juróom la ci alxuraan lan lan la yumba lañ ko tënkee laraaf ne ahadakul mawtu nayol nayol ñeneent la ci alxuraan eh, ñu tënko ii tafa ahadakum mawtu intaraxaa nga laan ahaduma mawtu tawafatu lan ahaduma fa ihi tafa ihi tafa ahaduma fa sadaqa te munafiqina ihi tafa in taraka nga laan hine wasa yaa njogu tawafar lana fa sadaqa ci saar munafiqin <clears throat> mu ne xaalli mun tongu njanna xaalli mun ngoxane xa lonkala mu ne njannaay de juróom ñeent xaalli mun tongu njannaay mbaam dara mangoog ku jotndo njannaay <clears throat> lil sina laaj naa yaa lépp nga laan yaa yaa yaa laan a gela tilka nga jigéen xat <clears throat> ala nga njogu kana nga salima kana bar salima kana bar salima halima kaw ci sarata mu ne wol wa yetti gangeen ku leen xëyee naaje ku leen gontee guddee nelaw wol wa daato nga mbër njaay wol wa sinoo nga dara nga saaru fajir waaw mu ne cuun cuun goo xam ne dafa sadda mu ne kësul la cuun si da kësul la mu ne waqi saay ha taabaa nga mbër njaay o wasa comba nayo la lan na lu sa lañ ko tey laan jigéen luqmaan seren sullu su jigéen sumunu jigéen fi sulusu jigéen sulusaani caatum jigéen fakk sarakum laraam inamaas ko basa nga ma gaan si xaalis saabiti yaar lépp nga saaru nali fattama sara nga saaru ma dem uma tali sara nga jaatiye <coughs> uma yóbbu songa bayaan saqalaani bayaan mun basan mun ne <coughs> mu ne baat jéeri xallun la kuma may ma naan yàlla may lam laysal bir la taalum njaay laysa xa lekk mbër njaay lottum loona gaay wax da jigéen laaxu jigéen ina laa faari wakkutub yetta mu jambul lewra wala ar yoquru janga bayan kibaaru jimbe ka baaru faru lesna usna nanga yunus wam daw teg baga hot masal rahdi qad makara nahli wa har da jenga njolma jamu xaaj ina la yudkhulu ina la yudashu ya lepp nga haaje hay haatak wala rahim nam afsati yetta lepp nga mon kasaba soraw ina qaaro na qasal ya'lamuuna rom mutashaakisuuna toon qul inni nuhitu xafraan illahi <coughs> yori tafsir faakina tuuri wa kam min malaki najmi rahmaanu boobu saar fa bayaan laa uqsimu boobu saar fa qiyaama waaw <coughs> mu ne mu ne xaalama sidda nayo la wa xaalama aadama laa nga aadama nga laan xaalama quraan nga bayaan xaalama bil xalami xaalama linsaan <coughs> yaa lépp nga saaru xanlaq kon nag ñu xamale ko ñu xamale ko wasalaamaaleykum ñu ngi leen di gërëm di leen sant <laughs> waaw alquran baat yi jafe baat yi jafe xam ne boo koy binde bu dee xaal lonk soo ko defee alkuber daanu waaw loolu loolu la so <laughs> moom moom la ñu mag ngi doon bindal waaw dañu ko wala baat bi soo koy bind nangam la xam ne soo ko xamut da ngay daanu <laughs> waaw loolu loolu la loolu <laughs> loolu loolu la daal la waaw kay moom la daal. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen. ci seen chaîne Malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi